¡Wow! quelle classe Wa fi mom rafet na di li nak lañuy wax paradis sur terre deug deug xaw won ni lu mel ni am vraiment du nouveau à Dakar dal leen ak ci Basit Imo Yen sama mbokki yen yi yeen sama mbokki immigré yi xam nga ko biti rew bëgg fo passer ce séjour à Dakar yeen ni bëgg passer sen temps pour vider vos esprits yeen ni nga vous êtes tout le temps en activité yeen ni di wo fu ngeen noppalo yeen ni bëgg fêter anniversaire ak ñi am programme séminaire dal leen ak ci résidence Basit Imo da ngeen bëgg fu chic fu ngeen passé seen temps jaratul dem ba ni nga paru wala la Rose xoolal suñu suite yi des appartements meublés ay studio ay mini studio ay chambre simple très bien meublé et bien climatisé chambre yi am salle de bain ak cuisine incorporée Basit Imo xoolal suñu studio yi am chambre salle de bain amna itam salon pour passer seen temps xoolal suñu suite mini studio yi mu di résidence meublée bu discret am sutura lol équipe bu dynamique té professionnelle ba noppi dañu lay défal accueil bu chaleureux basit imo mën nañu jël ay permanent dañuy jël ku bëgg passer ay séjour mën nañu jël ku fa bëgg def 24 heures waye itam mën nañu jël ku fa bëgg def 3 heures de temps voire même 1 heure malako wax résidence bi dañu ko défar pour kenn ku ci nekk mën ci gis sa bopp

يمي بتم بسياك يولي مي بتم بسياك على جي آن دومك نيمي تبديك لمي بتم بسياك يولي مي بتم بسياك مغان داوغي وان جيان يبو بغتتين علي بغتين سامبا بغتين مودو بغتين جونا تميد بغتين مور بغتين عجارة بغتين بوتكتا بغتين مرسيدس بغتين gën a bu ñëwagul gën a siiw alaaji la ñëpp di biiw ndax neen we up, we will do them cow. Could anyone is a talent, the boy got them for us. I didn't know that samba, me say this at Modu. Eh! Eh, more, eh, more, more. Eh, Kayo. Olko. bu ñëwee mën nga fi fekk bu fekkee réew mi nañ ko bëgg a bàyyi dina leer man sama amygdale yi met na trop ni nga may woowee léegi bul ma ko maa tey eh gis nga ku ñak fulla nga ku ñak fayda nga lu tax ngay dugul sa yon nekul yaa may yen de lu tax yéen sénégal yeen yeen yéen bëggu lu defaru lu yàqu rek ngeen bëgg lu tax ngeen bëgg lu defaru ngeen yàqu ko lu tax lu ngeen bëgg lu ngeen xamal nit wër ko lu tax du ngeen genn lu bax lu bon rek ngeen genné lan nga may doye la bëgg xam fen wi nga ni ko damay doxaan booy jël dem ba pare di ma di ma kirig loolu fen la ay fen la doxaanoo booy jël dem waaye kon loo xamal nit wax ko waaye du loolu dama ni da nga koy doxaan wala doxaanoo man maa ko doxaan moo tax nga bëgg a jël tàkko waaw non maa tàkko du mas waay eh, loo bëgg a expliquer foofu maa laa wax da du loo bëgg a expliquer foofu ku dama ko doon jël moo ma ko wax ni ma yaa ko doon doxaan ci suuf mun la may ma ma waxtaan ak sama njëganaay. waaw bo dess gor deugalal sa bop waaw léegi mon maa ko wax. ya ko wax ko wax. kon yow da nga bëgg a doxantaako. waaw. Modou malax yëg nga ni doo dem France. kan boo dem France. yow yow ya mo France. mais ma yor visa yi. yoroo tous. ni nga ci tollu non la ci tollu et puis xolal bul ma doxat gamay wo woo ah. mi su fekke non ko koo dang ko bàyyi. takko war na ma laminam bi de. Yo, gis nga lamiñu tàkk nee na ah lamiñ bi lu ne eh. cak lamin bu ndaw Wa wa foofu lamin bu ci biir day ndaw di lox loxi am Amna lu fa nek. Wa lamiñ yëppay lox loxi foofu am na lu ne ca lamiñ dulu. man daal wan na ma ko wan na ma ko lolou moy ndop nama. Bay dul. ko nan bay dul. yow bis bo mako ko yow lay wax bay dul. man sax dama jël ko déedéet jëlu ku dede dama jël contrat jàmbur Suma xexé aladi du am ku ko dalal France Grawul amul problème wuy ma ndakaaru njaay ken moomu doom raam lan laa leen waxoon lan laa leen waxoon eh, dem bii du nit de te eh, kii xamoon naa ne bu ci paree rek coow li jeex ndax damaa xam ne waa ji bu dee loolu la ko wax ñaan c'est fini te perle sont en terre mais xamul ko xamul xamul ay perle moo ko sonal waa ji deful dara de dëgg la déggoo li ma la wax cuuraay nag sama waa ji ah yóbbul ko ko ay téel ma ma wodd xajal ma ma jàll may ma ma ñaan ci tarantac mu ne je ne veux pas kan moo ne je ne veux waaye ki ban monde la juddoo yow. laay walaay. yow xale bu góor bu mel nii coofe roofe mignon ba comme c'est pas possible. xanaa xamoo na toll ko teg ko say loxo. kii nee naa ko ñaan lii du teel. lan la jaba jafadul sénégalaise wala lan la. sénégalaise la Makka Koulibantang bii la juddoo. Makka Koulibantang dafa tàng. <coughs> non kon kooku ay mbiram nañ ko xool. nañ ko xoolaat en tant que femme sénégalaise. Ah. ak ñun ñu xam ñu ñun ci toppatoo góor. Oh. mën ko lool nag. waaw góor bu ñu jàpp bu ñu la bàyyee boo demee ci biti loo fa xool fekk xamoon nga ne gisoon nga ko ci ñun dalaa neex rek nga dem ndax góor moom yàlla dafa def ne yéen moom da ngeen a kañawee da ngeen a kañawee kaña dafa ne ci yéen ay pax ay pax da ngeen koo bari góor dañ koy toppatoo mhm. gis nga mignon deful dara jabar ji mooy fautif est-ce que xam nga ne ñaan jeeg yi mu yor a baaxul xam nga loolu yow naka la xale bu góor mën a tiimee fer naan saa paxante perle te perle perle perle ni koy takk caq billaahi boo demee ay caq la ko ay caq la ko teg xamu ko xam na fu mu koy gisee man ñaan fer yi ba koy woon day jékki-jékki naa ma ndax mën naa ko takk sama baat ma ni ki mooy ci wéru sa kaw nag ay épilepsie la ma comprendre nga yor sa borom kër. Hmm. mu ñibbi si sa kër taaloo cuuraay. waaw salaamaaleykum war nga ko mën a teeru jox ko kaasu ndox mu naan. waaw. sa ay tànkam yaa ko war a raxas. waaw mu koy manucure. dañu wax dëgg te yàlla tax. ma leen tànn tuuti na waaye jooy na dëkkëram. góor da nga koy takkal ba boor est xam nga ne ñaan a ngi dund ci man lu amul fenn. ba boor laa eh, koy takkal di ko sexal. Eh, ñaan ñëw na fii ci biir kër. waaye foo nekk ci mim réew. Ah! yow foo nekk. ñaan ba war. ba eh. war laay takk eh. ba waru ñaan bëgg naa ko ñan ñaan léegi dafa dafa dafa nekk à jour de. lu muy wax boobu boo ko tegalee bavaar bi. mon bébé. <laughs> Eh, eh eh eh xam nga lan laa tuddee ñaan. waaw su ma la waxee dégg gëm raisin raisin laa gëm. <laughs> oui ba dañ ko wutal dañ ko wutal taasu. wala dëgg épleur blur, bleu nu ma day jooy. lii lan la. est-ce que li waa nga jël tuddee ko furi yow furi. poisson laa ko tuddee boole ko di ko ba voir su ba jox mu lekk. nan ngi beneen monde. nan nan ma koko. di nga di nga ñaan de. man ñaan ñaan koy wax. man lu rek bëgg ba ko def ay def. raisin naka def oui raisin raisin naka def. raisin am na waaye raisin naka def <laughs> raisin bu Maroc lan koy wax am na raisin. Roumanie am na raisin. Eh. Tchad am na raisin. waaw Sénégal Sénégal raisin Sénégal. moom mooy ah, raisin Sénégal non <laughs> gaaw a nëb. raisin ñaan daal nañ ko tuddé raisin mu jé mais ñaan bu nekké raisin Sénégal ñaan xam nga dafa nëbboon waaw dafa nëbboon woon na yak won na romani nga koy yobbu romani ko di seek yow li mooy baptam di seek alaajee ah doom ak ñeemee tuddee ko ngoon li mooy baptam di seek yow li mooy baptam di seek mag ñëpp bëgg ci bëgg bëgg meet Baghdad